ñoo dégg kaddu yu tukkee ci Cheikh Abdoul Fatah kaddu nag bu jógee ci ab xol soo ko jaar ci aw làmmiñ nopp yo koy dégg dañuy dégg te ku dégg kaddu yoo xam ne ci xolam la loolu te lépp dëgg la kon bis baa ngi noonu léegi ñoo ngi yëkkati kaddu gi jox ko sëriñ Mahmoudan moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne moo yore kaddu kër sëriñ Abdoul Ahad mu fas yéene yëkkati ay kaddu ci ndigalu sëriñ Sidi ñu déglu ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تيجي توك ممكن تيجي توك ممكن تيجي توك ممكن تيجي توك ممكن تيجي توك ممكن تيجي توك kadi ɗum noon jagom dara ma anda sen sidu men kon sen ɗaɓo mum bayla ko noon ɗum wakko ndi ɗum wakko tan bala yon ama ɗum ko ɗum tagganti mum mam ɗum ɗum ɗumata ndi accé daf man man taggatto lépp moom perfection solo tal définition kon ay ji su fi teewee dëpp na ci kàddu kër si yow yëpp sax diggante Moussa Diagne ak diggante Serigne Fallou ak Serigne Abdou Lahad ñëpp xam nag ñëpp gis ndax seen diggante sori lool ci saa yi ak ci bati bare na it ñu daan seq sax ci ci bati yoo xam ne bataay bi duñ ko gis nga wax waaye ñu ñu koo ko takk mos ma andi ci rek boo xam ne sëriñ bi toog ci moom la sababoo toolam ñu gis ñoom say laaj bu ñu koy sàcc sëñ Fallou dem ko woo sëñ Ousmane tàndal ko ak sëñ Ousmane Bousso booba defe naa ba muy muy si ba ñu ñëwee foofee bokk toog fi ñu ñett sëñ Abdoul Ahad sëñ Fallou ko daa yor sëñ Ousmane Bousso jàngal saa sang ak saa ak jàngal saa sang ak saa sang ñun ñu jàngal loolee mu jàng loolee noonu la ko waxee ci sëñ bi saw wala kon lii ci am sa def jël ñëpp jël ñëpp dalal ko suñu fan bi joxaat ko suñu ëpp xanaa moom ñu di ko fii di ko fi woote léegi bu rëy rëy moom bi suñu ëpp laxat di waajur bi dafa nekkoon bi ñu ñëwee ñaari abdul ahad ñu yoo xam ne sax baax moom wax nag day di ko cher dëgg la moom loolu rek doon ko doon sax ak si ñu rafet njort ci mbir ñu fii hmm. ndax moom bi mu ñëw tey Cheikh Abdou Fattah nii suñu kilifa nag ko ñoo ñoo ngi déglu ci wax waaye bi mu feeñee am na sax moom la mu faral ñu ko tudd Abdou Fattah la xam ne moom ñu ko Miftah. ilaa kon fii tey noonu dañuy daal di rafet njort te wéral mu ci bëgg lépp suñu ci wàllu ci. dafa rafet lool nag. te rëy tam. ba tax na tam ñu ngi ci woo ñëpp nag boobu kenn yoonu ñëpp rek. ndax bu suuf si suuf moom suuf loolu te defee suuf dara lu fàttali lu baax ak si ak jàngat seen jikko ak nañu àndante xale yi mën ko way loolu kese mooy woote tey parce xam nga kon bi ñu fi teewee rek li ma wax mooy suñu fa tey lépp moo si moo wax ci seeni kàddu man dama cee teew rek li fedd yi ak leeral li mu wax ci diggante ni seexul xar na mu nañu demee jërëjëf Serigne Mahmoudane yaakaar naa ne képp kuy dox ci kaw suuf la nga bëgg mooy suñu borom ubbi la ay buntam sa digg ak te loolu la Serigne Fallou ñaan ci Serigne Fatah kon ubbi bunt ci ci ci darajee turam bi ak kaddu wàllu yu barkeel woowee di Cheikh Mamadou Fadal nga xam ne lu ma saa wax yàlla def kon ñoo ngi yëkkati kàddu bi nag jox ko Serigne Abdou Lahad Mbacke moom Serigne Ndiogou Mbacke mi nga xam ne moo ñuy wax programme bis ba buñ ci àggee nan lay tëddee kon sëñ bi bisimilah.